wal madadi ahlan wa wa tarhiban bila asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi si wur seen site internet bi di 24 actu yi comme ni ñu ko baaxoo di ànd saa su nekk ci naafilay weeru koor wi tey nag ñu dëkkal leen ci guddi ñaar fukkeel gi ak juróom benn fukki rakan lay nekk rakan bu ci nekk fatiha benn yoon alxaaria benn yoon lixlaas di xul huwallahu ahad juróomi yoon ñu bamtuwaat ko fukki rakan lay nekk rakan bu ci nekk fatiha benn yoon alxaaria benn yoon lixlaas di xul huwallahu ahad juróomi yoon fukki rakaa nag juróomi sëlmal lay nekk ñaari rakaa yoo julli daal di sëlmal ñu dikkal leen ci waxtu yi nga xam ne ci la jàpp koor gi di 5 maanaam juróomi waxtu ci fajar bu taftalee fukki simili ak juróom-ñaar bu dee waxtu dog yi 19 heures juróom-ñaari waxtu si ngoon bu taftalee fanweeri simili ñu leen di jox dig daje ba suba incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban